coupe du monde 2022 bay am jamono ji ca Qatar nag bëri na ay surprise yi amee ci ñetteelu phase de groupe bi waaye xibaar gu mag guñ ci mën a jàpp mooy niki démb équipe bu Maroc daal dinañ def sensation ndax ca pul ba ñu bokkoon ak Belgique ak Croatie ñoom ñoo ci mujjee nekk pays daal nekk ñaareelu nation africaine bu daal di qualifié ci huitième de finaal yi niki démb poule E ak F ñoo doon jogante waaye Allemagne nekk champion du monde ca atum 2014 nag moom du téye huitième de finale yi ndax dañ ko daal di éliminé Belgique itam nekk ñetteelu nation ci classement FIFA du gisandi yi leen huitième de finale ndax poule ba mu bokkoom moo jiwu caa génn. bokk ci groupe F bi équipe bu Maroc nag mënoon na su amee match nul daal di génn ci seen poule bilee ginnaaw bi mu dooree Belgique ci deuxième phase de groupe bi ñoom ñuy woowee les lions de l'Atlas ci seen jógante ni ki démb ak Canada amoon nañ ca taxawaay bu mucc ayib ndam loolu la ñu am sax moo tax ñu daal di nekk première ci seen group amee ab assise défensive bu baax ndawi coach bii di Walid Regragui ni ki démb nag teel nañ bu baax dugg ci match bi ndax bu ñu jongantee ba match bi am ñeenti simili ci la joueur bu Chelsea di ak Ziyech daal di profito ci ab contrôle boo xamante ni góor bu kanadaa moo ko def te baaxut daal di koy lobe tax ba Maroc am benn bal ci dara. ginnaaw bii boobule équipe bu Maroc bi itam tooguñu di seetaan bàyyi rek Canada football ndax ñoom itam agressivité bi ñu amoon moom la ñu wëyal ba tax na fukk ak ñeenti simili lañ ci teg Youssef En-Nesyri di attaquant bu Maroc ci ab passe boo xamante ne Achraf Hakimi moo ko def dem jàkkaarloo góol bi daal koy dàq tax ba Maroc am ñaar Canada amul dara boobu ñoo ngi football ñaar fukk ak ñetteelu simili. fukk ak juróom-ñaari simili lañ ca teg défense bu Maroc bi nga xamante ne bi jongante yi commencé ba léegi daanaka amut benn bit boo xamante ne jot nañ koo jël seen but bi ñuy njëkk jël ñoom ñoo koy daal di dugal seen i ab centre boo xamante ne ailier gauche bu kanadaa daal na koy def di Buchanan défenseur ba di Naïf Aguerd moo daal di contrer bal bi daal di nax góolam di Yacine Bounou tax ba Canada daal di dellusiwaat ci jongante bi am benn Maroc am ñaar noonu sax la ñu demee ca noppaliku ga bañ dellusee nag Canada commencé li ñuy wax attaque défense naka noonu ñoom canadiens yi amuñu woon beneen xalaat lu dul jéem a dellusiwaat ci jongante bi ndax donte ñoom éliminé nañ leen ci compétition bi ba pare waaye bëgg woon ñibbi te duñu am benn victoire naka noonu cong yi bari woon na lool waaye défense bu Maroc ci njiital capitaine ba di Romain Saïs amut benn fay boo xamante ne jot nañ ko def ci deuxième mi bi ba tax ñoom ñi di waa Canada mën a dellusiwaat ci jongante bi noonu la jongante ba jeexee Maroc daal di am ndam am juróom poñ dugal ñeenti bal daal di encaissé benn ci beneen jongante ba nag équipe bu Belgique moom li ko soxal noonu mooy daal di am ndam ci digganteem ak Croatie waaye loolu mujjut antu tax na ba moom lay di Belgique nekk ñetteelu nation ci classement mondial mujjut qualifié ci group boobu noonu ndax Croatie moo ci génn jël deuxième am juróomi poñ. ba jongante ba jeexee ka nekkoon entraîneur bu Belgique di Roberto Martinez moom jot naa xam ne ne day tekki ndomba tànkam ndax sas bañ ko joxoon moom mataliwu ko. ci beneen wàll wa di poule ëba e nag foofa itam am na ab ngàndam surprise bu fa am Allemagne bokkoon ci équipe yi nga xamante ne bàyyi woon nañ xel loolu laata jongante yi di commencé ñoom huitième de finale yi daañu ko ca mën a bokk ndax seen groupe boobu di groupe E nag équipe bii di Japon moo ca jiitu Espagne daal di cay topp ñoom Allemagne ñetteelu place ba la ñu daal di jël moo tax éliminé nañ leen ci phase de groupe yi laata jongante yi di tàmbali ci groupe boobu leen nag ñeenti équipe yi ko bokk ñoom ñëpp mënoon nañ qualifié Espagne amoon na ñeenti poñ Allemagne amoon benn poñ Japon ak kostarika Rica ñoom ñaar ñi lay ku ci nekk amoon na ñetti poñ ca ndorteel wa nag ñoom ñaari équipe yu mag yi nag daanaka ñoo jël jogante yi def ko seen moomeel ndax ca jogante Espagne ba ñu footballee fukk ak benn simili ci la Alvaro Morata daal di dugal bit mu njëkk ci jogante boobu ci centre boo xamante ne César Azpilicueta moo ko daal di def te weneen wàll wa ci juróom-ñeenteelu simili bi Serge Gnabry di football ca Bayern Munich moo daal di ndugal moom itam ci ab mbëkk ci passe boo xamante ne latéral ba di rëm moo ko ko daal di jox tax ba Allemagne am benn kostarika Rica amul dara ca waxtu woowu ñoom ñaari équipe yi yëpp ñoom ñoo daal di qualifié bañ doxalee tuuti ba dem mi-temps te dellusi nag foofa yëf yi dafa daal di wëlbatiku ci jongante Espagne nag ci juróom benn simili la Japon daal di wëlbati match bi dugal ñaari but benn ba ñoo ngi koy dugal bañ fubalee ñeent fukki simili ak juróom-ñett Ritsu Dohan moo daal di jël ab centre boo xamante ni Jinju Ito moo ko ko jox tax ba Japon égalisé ñetti simili kot lañ ca teg Awo Tanaka moom itam ci ab passe boo xamante ni Kaoru Mitoma moo ko ko jox daal di tax ba Japon am ñaar Espagne des ci benn ci beneen jongante ba Costa Rica moom itam daal di fippu ci digganteem ak Allemagne ndax ginnaaw noppaliku ga fukk ak ñetti simili lañ ci teg moom Costa Rica daal di égaliser ku ko def tudd Yetsin Teceda naka noonu ñoom Costa gëm ne mën nañ qualifier daal di wéy di cong défense bu Allemagne fukk ak juróom-ñaari simili lañ ci teg maanaam ba ñuy fubal ba jongante ba am waxtu ak fukki simili ci ab centre boo xamante ne ñoom waa Costa jot nañ ba di Emmanuel Neuer a ba ba li leen a tax Espagne desandi ci benn. ci waxtu woowu lee ñoom ñaar équipe yu mag yi di Allemagne ak Espagne éliminé woon lañ leen ci phase de groupe yi. xam ne taxawaayam baaxul moo tax entraîneur bu Allemagne di Hans-Dieter Flick daal di def ay changement dugal attaquant bii di Fulkberg Kai Havertz ak Mario Götze. ñoom ñi la sax ñoo daal di coppi jongante bi ndax ginnaaw ba ñu encaissé but ba ñetti simili côte lañ ca daal di teg moom mi la di Kai Havertz di football ca Chelsea nag moo daal di tax ba Allemagne dellu si ñaar ak ñaar ñu teg ca juróom-ñetti simili moom Kai Havertz daal di dugalaat beneen bal tax ba Allemagne am ñett Costa Rica des si ñaar ñu teg ca ñeenti simili beneen attaquant ba mu dugaloon di Fulkberg moom itam daal dugal ñeenteelu bal bu Allemagne waaye lii lee taxul ba ñoom ñi lay waa Allemagne daal di qualifié ndax ca beneen jogante ba score ba fa amoon di ñaari bal ci benn ngir Japon moom moo wëyandi Japon daan Espagne ñaari bal ci benn waa récupérer Espagne jël deuxième li leen nekk ab mbetteel lool pour ñëpp ñi nga xamante ne dañuy seetaan football ndax kenn yaakaarul woon ne ci boobilee groupe moom li lay Japon daana mën a dóor ñaari équipe yi gën a mag te nga xamante ne nekkoon nañ champion du monde lu yàggul dara ci atum 2010 ak atum 2014